bilal faal di rey déedéet xëy na li tax kura bàyyi bilal faal parce que dafa gis ne kii reykatu nit la nit ku soxor la waaw li tax ñu rey ko ki ko rey dañ ne psychopathe la bilal bilal faal nit la boo xam ne nit ku raglu la nit ku raglu la yàlla yàlla musal ci nit koo xam ne ci reykatu nit am na sax benn audio bu ma dégg bu ñu ne bilal faal rey na ñetti nit

wala est ce que dañu tal kër gi wala taaluñ kër gi ndax kër googu bu fekkene ne ko comme nim ko waxe sama benn vidéo da fay wone né famille jibril Diol dañ leen wara fay xaalis bu dul jeex ay milliards yaakaar mo lolu ndax immigré mom njëkkewu fi indi jabaram um, um, Amérique wala ngay sa jabar Europe wala Brésil wala fu mu nek sa jabar war la la bu ñu ci ñooñu bu leen fàtte tamit am na beneen sénégalais bu tudd Bara sam moom it Atlanta la nekkul xale bu ndaw 30 xaw ma 35 ans la am xaw ma fanweeri at ak yu topp tuuti la am moom it dañ ko fekk ci otoom ñu dóor ko bal jaajëf tey jaajëf tey sama gars yi bon man la Mister Shake euh, tey dama ñëwaat euh, bëgg leen defal benn vidéo ci sénégalais yi nga xam ne dañ leen di rey ci bitim réew waaye dañoo xool ne sénégalais buñ ko reyee police du def enquête buy war ba ñu xam kan moo rey ñu jàpp leen tey dama bëgg joxe ñaari firnde benn bi mooy Brésil am na benn sénégalais buñ ñu fa te ñu ngi jaal jaale ay mbokkam benn sénégalais bu tudd Assane Diouf ñu ngi jaale ay mbokkam wax yi ñuy wax waxuñu ko ngir euh, yeewaat fitna déedéet waaye ñun ay immigré lañu te dañoo gis ne lii sujet bu intéressé la nit ñi la dañoo seetlu ne saa yu sénégalais. deewee bitim réew loolu ñëpp ciy wax Sénégal lépp ci wax moo tax nag ñu bëgg def émission bi ndax Assane Diouf boobu ki ko rey li tax ma gën a métti ki ko rey sénégalais la woon comme moom ku ñuy wax Bilal Fall waaye li tax ma gën a bëgg a defaat euh, émission bi mooy ne fan yi dégg nañu juróomi sénégalais yu faatu yàlla na leen yàlla yërëm ci benn lakk ndeysaan ci dëkk bu ñuy wax Colorado Jibril Njool ak njabootam ak yeneen ñeenti jigéen yu faatu jabaram a xaw jabaram Adja ak doomam Xadijata yàlla na leen yàlla yërëm ak rakku euh, euh, Jibril Njool bu jigéen ak doomam foofu tamit dañoo gis ne boobu ba léegi police dafa ne dafa am ku leen rey dafa am ku ñëw taal waaye li ñu li ci jaaxal mooy lu tax boobu léegi kenn xamu ci dara ñooñu tamit lii dañu bëgg rek pour nit ñi ngir nit ñi jàng ci ndax Assane juuf li tax ñu rey ko ki ko rey dañ ne psychopathe la Bilal Bilal Fall nit la boo xam ne nit ku raglu la nit ku raglu la yàlla yàlla musal ci nit koo xam ne ci reykat nit am na sax benn audio bu ma dégg bu ñu ne Bilal Fall rey na ñetti nit Assane Diouf moom la njëkk rey te Bilal Fall boo dégloo audio yi li mu doon waxee ni mu doon tëkkoo saam suñu wax saam diko wax yow dina la ray bu yobo nga fay say bor bu yobo nga pare barke eh, seigne Abdou Karim dina la ray ba paré nim koy waxé ah ba paré dadi dadi dem ray asun djouf parce que sam la dafa am ku tuddu sam ku mu don tukku di tax mu koy tukku ngir dafa ne sam bobu dafa sekk ak jabar bu ñu wax kura kon ki li tax muy rayé moy fiir moom ci li mu wax ci audio bi ci li ma jot dégg moom moo indi Coura Brésil moom moo def ay millions ci Coura indi Coura xëy na nag looloo tax est-ce que looloo tax mu dof est-ce que li ko Coura bàyyi moo tax mu dof man yaakaaruma loolu. yaakaaruma loolu ndax immigré moom njëkkewu fi indi jabaram. Euh, Amérique wala ngay di sa jabar Europe wala Brésil wala fu mu nekk. sa jabar jabar war la am na ñoo xam ne seen jabar moo leen war daa di dem mais loolu est-ce war na tax yow tamit ngay rayaatee kon kuram yi ñun du ñu wax ne moom moo tax Bilal Fall di rey déedéet xëy na li tax kura bàyyi Bilal Fall parce que dafa gis ne kii reykatu nit la nit ku soxor la waaw ni mu doon waxee est-ce que moom sax reyul ay nit Sénégal avant muy dem euh, fële Euh, Brésil ndax yow nan ngay woowee Assane Diouf woolu ko sa kër Cheikh Ndiaye mooy nettali ku ñuy wax Cheikh Ndiaye mooy président association des sénégalais Sao Paulo ci li ma jot liir Cheikh Ndiaye nee na magam magu Assane Diouf moo ko woo ne ko man Assane wax dëgg dégguma ko ñaari fan yi dégguma ko ñoom nag ñu dem di seet Assane suñu Assane waaye ci suba si lañu gis ci xibaar yi ñu bind ne am na nit ku gaañu te mi ngi sol. yére bu euh, jaune ak veste bu ñuul ci lañ ne ah kon xëy na Assane la parce que ci la magam ne a ah, xëy na Assane la ba ñu demee nekkate moom la Bilal dafa ko wóolu dafa wóolu Assane Assane ñëw ak velo mu ne ko dellul nga ñëwaat sans vélo Assane dellu ñëw sans velo mu dóor ko par de fer weñ weñ la ko dóor ba mu xam mu ci li ñu bind mu jamante ko rey bu ñaaw ba pare jël benn xaritam ñu yóbbu Assane waaw léegi nag ñu bëri dañ doon wax rek dañ daf daf ko daggate daf ko daggate gis nañu sax benn mbokk asan Diouf bu génn di ñaawlu li city di def city dañuy ñëw duñu am information ñuy wax waaye nag site ñun lu ñu lu ñu lire rek la ñuy la ñuy wax waaye booy wax da nga naan ah ci li ñu wax loolu moo gën sit booy bind da nga naan ci li ñu wax ci li ma dañ ko daggate waaye mbokk asan Diouf boobu génn di ñaawlu city ah lu am rek ngeen ñëw wax te doo leen def benn gëstu waaw waaye li ci mën am ci puus puus la ko yóbbu ci li Cheikh Ndiaye wax ci puus puus la ko yóbbu dugal ko ci ak carton daal di ko sànni moom ak benn xaritam waaye audio yi li ci doy waar mooy dafa am koo xam ne dafa ne Bilal mii rey na ñetti nit Bilal rey na ñetti kon mën nañu wax ne Koura dafa rëcc jabaram Koura bu yóbboo mu nooy bu baax a baax baax te fi mu nekk nii sax ñoom ñëpp mu ngi ci guuta ndax reykatu nit bii daw na mais li ma ci jaaxal lu tax ba léegi jàppuñu ko bu doon brésilien lañu rey gars yi dinañ def enquête mais ñun loolu mooy suñu problème ñun immigré yi ak racisme bi am fii Europe ak yeneen dëkk yi nit ku ñuul wala africain bu deewee dañ duñ ci sawar noonu waaye bu tubaab deewee enquête bi dañ ciy sawar lool fan yi am na ñetti tubaab yu ñu fi rey mais man dama ne ñetti tubaab yu ñu rey dama ne ci semaine bi dina leen ñu leen rey dina leen jàpp ndax bu ñu demee xool caméra dem ci benn Walmart benn raf benn supermarché bu mag ci caméra yi la ñu xool rek gis benn nit bu leen toppoon ah noonu la ñuy def ba xam sénégal yi ñu rey ñu yu ñu ne dañu taal seen kër ndax ñun wóoruñu sax ndax dañu taal seen kër lu tax mënuñu xool ci caméra yi ñu xam lan moo am foofu wala est-ce que dañoo taal kër gi wala taaluñ kër gi ndax kër googu bu fekkee ne taaluñu ko comme ni mu ko waxee sama benn vidéo loolu dafay wane ne famille Djibril Diol dañ leen war a fay xaalis bu dul jeex ay milliards waaw waaw léegi kan moo leen di fay cité dëkk bi ñuy wax Denver ñoom ñoo leen di fay wala ñi moom kër kër yooyu ñoom ñoo leen di fay des fois nag bañ a fay nit ñi moo tax ñu naan affaire bi du du du ndogal ndogal yalla du accident dafa am ku ko taal waaye bu ñu ci ñooñu bu len fàtte tamit amna benen sénégalais bu tuddu Bara sam momit Atlanta la nekkul xalé bu ndaw 30 xaw 35 ans la am xaw fan wéré at at la am momit dañ ko fekk ci autom ñu door ko bal waye man ba légui déggutuma ci dara xamuñu kan moko japp xamuñu kan moko ray déggatuma ci dara ndax ñun ñun ñun immigré ñëpp xam nañ ñun sénégalais amuñu problème ci li ma jot a liir bu ma bindee turam su ma bindee baara ñu ngi jala ay mbokam ñun li ñi def ni dañuy bëgg rek di yété ndax mën nañu dal ñi ñun ñi ay immigré mën nañu dal waaw bara sam mom bo bindé turum da ngay gis rek ñu bind ay article yo xamne day wax ne ci otom lañ ko fekk do ko euh, am kumu mu xulol xulool mu taal otom di jema daw ñu dóor ko bal am na sax benn jigéen bu ñu dooraale bal ndax ñun ñoo yaakaaru famille yi moo tax lii nag moo tax mu intéressé nit ñi waaye nag Bilal Fall moom mën nañ ko tuddee un tueur en maanaam reykatu nit la dafa am nit ñoo xam ne dañoo feebar rey nit daf leen neex kooku am am na ku ci wax ne rey na ñetti nit mais kooku ni muy waxee rek da ngay xam ne kii mës na rey nit waat yi mu doon waat man dama koo déglu man sama bopp sax damaa tiit kooku bokk ak moom continent waxuma la sax dëkk Brésil wala Sao Paulo moom bokk ak moom continent sax wóoru ndax Bilal Fall mii mën na delluwaat Brésil sam sam boobu mu doon tëkku dafa mujj daw dem police dafa rëcc sam boobu dafa rëcc mais fu mu nekk nii rëccagul ndax Bilal nit la koo xam ne rancunier la gis nga bëgg nit jigéen am na ñoo xam ne jigéen euh, euh, dañoo fiir fiir fiir bu seen jigéen bu leen bàyyee mën nañu dof mais kii da lay leer ne dafa amoon déjà problème mais kii ni muy waxee da ngay xam ne kii kii ragalul dara ragalul dee ragalul ñu tëj ko Bilal mii ragalul dara dara ragalul ñu tëj ko. kon gouvernement sénégalais comme ñun ay mille milliards lu ëpp mille milliards lañuy dugal ci koom bi bu fekkee ne dañoo am ku dee dañu dee fii ndax corona bi tamit ñaata sénégalais la rey fii New York rek dégg naa lu mat ay seize wala vingt et vingt vingt dee nañu comprendre kon dañu bëgg ni ñu fonkee suñu gouvernement gouvernement bi fonkee ni mais affaire Bilal bii daal Bilal Fall bi ak ak ki ko jàppale te ki ko jàppale xam naa ko ragal Bilal Fall la rek boo ma jàppalewul ma rey la rek xëy na noonu lay demee ndax man gaañ bi sadique la suma gis ni glacé nii mon sang était gelé maanaam sama deret dafa mel ni dafa glacé ba may dégg ni mu doon waxee mais dinaa leen tegal audio bi ngeen dégg de man dew ma ba kenn doonu sama jabar déggoo ma laa xanaa barki alxuraanu karim am na dim sama ndey démb gisoo ma sàmmoolu tey gisoo ma fi laajal la ma def foofu noonu ba maa ngi ñëw billaahi wallaahi ma agsi fi ma jëm nga xam ne lépp dëgg la xamoo li ma capable jàpp xamoo li ma capable ku la du faat ni mu doon tëkkoo nit ñi waaw ku jara moytu la ku jara euh, wër la ku kii dañ ko war a jàpp waratul génn ndax rey ko nit la kii boo ko bu nekkee ci prison sax dañ ko war a per ndax kii moom rey nit ak rey ginaar la yemale Ta mission is done, Paramare number one, Wally's number one. Wall is number one. Ta battle is one. Ta mission is done. Paramare number one. Wall is number one. Ta battle is one. Ta mission is done.